su tashriq ayaamu tashriq mooy bu ñu mel ne tey ëllëg fan yi nga xam ne weer yi day feex leer naa ñu mët <coughs> ñooña dellu bu ñu waaree seen waa Lansaar ba noppi ñoo am mbooloo moo xam ne nee bu ñuy dellu di aj ñoom bu ñëwee daañu tuub ndax tuub nañu ba noppi ci ñu xamul musulmaan waaye bu ñu dellusee daañu jaayanteeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu lañ tuddee al aqabatu saaniya bu ñu dellusee ca àq ba daje bu njëkk ba ñu yokk daje bu mujj ba nag nga xam ne ci la ñu bëgg a fasanteel yonent bi ci kaw ñu gàddaaye na ñoom fekk si leen ñoom madina waa madina ñu aar ko ñoom wane ko ne bu boobaa boo xasee ba ñëw si ñoom lii la waa màkk daan def ak di ko def ñi nga àndal ñëpp dana dakk <coughs> Seydina Abbas ibn Abdul Mutalib nag mi nga xam ne rakk bàyyi yonent bi la woon tuubul waaye bëgg gi mu bëgg mbokkam moomu di Muhammad tax na bi mu yëgee mbir mi mu ñëw dajee ñoom ca fa mu daje ne leen léegi yéen waa Madina dama leen di xamal ne Muhammad nii fi mu nekk kat xëy na sonn na ndax li mu indi rëy na ci nit ñi mu bëgg koo dugal ñoom ci ñoom ci seen bopp ñoom ñëpp tax na mu sonn waaye nag am na ku ko aar kenn àggul ci moom dara dellu ko bu fekkee nag da a bëgg da ngeen koy fas yéene yóbbu ba noppi bu ngeen demee bu waa Màkka dalay seen ko wala ñeneen ngeen bàyyi ko di ko jébbale bàyyi leen ko fii ñun man nañ koo aar mën nañ koo wattu mën nañ koo garder ñu xamal ko ne ko nuñ day ñu ngeen koy aare ñun daana ko aare ñu ko ëpp ndax daana ko aare ñu muy aare suñuy doom ak suñuy jigéen <coughs> Abbas nag daal ñu leen loolu ñu ngeen may jox ahdullahi wa misaaquhu ci kaw loolu ñu fasanteeg moom wëllëre ci xàq yàlla gannaaw bi ñu bàyyante jaayanteeg moom ba moom yonent bi bi waxee ba noppi mu wax dal di leen di waar xamal leen ñi leen yàllaa ko yónni te dana leen boole ñuy lenn li ko yàlla yónni dana ko jotal ba ñu daal di tànn foofee fukki naqib ak ñaar ñoo xam dañ leen a tànn mu des nag léegi gàddaay bi jàpp bu ñu bis waaye di tàmbali saaba yi di yàlli ko ndànk di dem Madina di yàlli ko ndànk di dem Madina si naa bu bëkkee moom wax wax na wax ne yonent bi ne ko damaa bëgg a gàddaay mu ne ko nga yàlla mën na laa wutal àndandoo booba rek la tàmbali am yaakaar nag ci waaye ne dana mën a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi nga xamee ne yonent bi sallallahu ci boppam boo <coughs> ci def ak Sidna Alioune ak Sidna Aboubacar ñoom rek ñoo ga ñoo demagul benn bis nag yonent bi mu ngi doon déglu rek xamal ko ne ko léegi nga gàddaay tey bul fanaan Màkka fekk na bis boobu waa Màkka musrikoon yi yéefar yi daje nañu bu ñu dajee seen kër gi nga xam ne mooy seen këru dajukaay di seet rek ni ñuy def Muhammad ndaxte léegi am na doole ndax diine ji génn na ba dem Madina waa Madina yëpp gëm nañu waa xam itam ñu nga ne gis nga ni ñuy def léegi ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ci réew am na ci mbooloo moo xam ne bugg nañ ci diineem léegi amatuñu négal ñu ne nañ ko tëj ci néeg di ko jorxal lekk bu ko defee bu mën a dem fenn bay woote fekk na iblis soppi ku ne benn góor bu dëkk nag yow bunt bi nga xam ne mooy bunt fi ñuy daje ku dikk ñu téye la boo warul a dugg iblis ñëwee wax leen noonu ñu xam ne amoon nañu waa najet affaire ñu bàyyi ko mu dugg dañu ko dañu ne bañ bi mu bi mu duggee toog waa ji wax rek ñu dégg li nga wax ne la li nga wax jubul ki nga xam ne moo ne nañ ko tëj ci mu ne leen bu ngeen defee noonu wax ji muy wax dana génn dëkk bi ba daj réew mi bu ngeen wóolu li mbooloo mu xëdil fenn rek fekk leen ci màkka daj leen di joñ jiital wala ñu jàpp leen rey leen kii wom moom xel jubul ñu ne kon nag nuñ koy def nañ ko génn réew mi dàq ko buñ ko dàqee benn araab yi rey ko ñu noppalu ci moom wala buñ ko reyul itam bu xasee ba li muy toppatoo antu muy borom doole mu nekk ay mbokkam mu ne leen loolu ba tey jubul bu génnee day dajale xeetu arab yëpp ci diineem daal di nekk buur dikk moom màkka loolu jubul ba mu ko defee ne Abu Jahl ci boppam daal ni man de li ma xalaat moo di nanu seet mboolem xeetu jiiri arab yëpp jiir bu ci nekk ñu tànn ca ka ca gën a diggu muy ponkal moo xam ne dafay am doole am njàmbaar gaaw am fit ñu jox ko jaay si joo xam ne dara nu koo tul ñu tànn ci juróom-ñaar fukk ñu tiimandoo ko benn yoon ci lal bi muy nelawee dóorandoo ko benn yoon muy comme benn jaay si bu dal bu ko defee deretam dana teqali ko ci gàddi arab yëpp waa banu Hays bi du ñu mën a déclarer guerre du ñu mën a déclarer ndoo guerre gàddi arab yëpp dañuy mujj rek obligé laaj déye bu ko defee nu dajalee alal fay déye ji gis ne leen maa ngi dégg nag ku wax wax ji jub kii de mooy ki wax wax ji wax ji di ànd ci loolu daal di wut seeni ponkal jox leen jees yi ñu fas yéene ne guddi tey bu Muhammad nelawee ñu daal dem ci këram def ko noonu parce Muhammad dem na waxtu yu mu daan ñëw ci kër Abu Bakar suba teel la daan doon wala timis bu daal di ñëw ci waxtu jànq bi mu agsee rek ñu daal ne ah, am na lu xew waxtu wi de yonent bi daawul ko ñëw li nga xam ne yonent bi agsi na daal di xamal ci ñoom Bakar ne ko léegi day dama bëgg a gàddaay ndax jot naa ndigal tey jii kon laay dem Aboubacar dama bëgg nag ñu ànd na nga waaj si na Aboubacar bët ba jooy daañu ne nag ñoom jox nañ leen seen i jaay si ñu ngi nekk rek yàkkam si jant bu so yonent bi dem ci Aliyu Abi Taalib ne ko léegi yow ndénkaan yi ma doon dénk dama bëgg nga toog fi ba delloo yëpp bu jant sooyee na nga dugg sama néeg tëdd ci sama lal malaat mi ma daan sàngoo nga sàngoo ko bu soobe yàlla dara lañ la dul mënal duñ la def dara abou bakkar nag ñu daal di bàyyi ba nga xam